Cheikh Diallo banex la sa suné ci ñun ñu ñëw jàkkaarloog yow di nuy bu baaxa baax euh, soxna si dem nga xamni ne ñoo taxawoon ne di waxtaan. Mhm. nuy bu baax sama soppé bi ma jakarlo muy euh, garmi macha allah démb mhm. rek lay togn Mourad. mu def ko statut mané ko waaw def nga statut nit ku sincère. Mhm. di contane ci sama sœur. Dieynaba Seydou Ba la Julie. kontaan tam ci ajaratu Bessél Bass sama rakki bopp. nuyu bu baax a baax euh, suñu mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun. Mhm. Euh, Mamadou Ndiaye Bale moom itam ñu ngi koy wax si Sigi Ndigalé. noonu la ñuy jàllee sànq ñi ngeen jàlle yépp macha mhm. allah. Mhm. képp ko xam ne mi ngi nekk ci tiis rek. ñu ngi sukk ci wetam di ko nemmeeku di ko ziyaara njëkkale euh, nag nuyoo bi ci suñu ay way ju nuyu itam kilifa diine yi kilifa aada yi. ñi nga xam ne jamono ji tam ñoo nekk di liggéey ci wàllu mbas mi macha allah. Mhm. képp koo xam ne rek yaa ngi ci Sénégal gii nekk fi kilifa itam euh, macha allah ba nga xam ne saa su ne rek lii nga xam ne xew na ci jamono yaa ngi ci dugal sa loxo. ñu ngi sukk sa wet di la masalu coono bu baax a baax. Mhm. di foon nag suñu yaayu bopp yi nga xam ne. li ñuy wax rek doom su xawee am fit rek dafa fekk ay yaayam gunge ko. Mhm. kon suñu yaay yi yàlla nañ fi yàgg te wér. ci ne boppam day metti rek njabota tax boppam di metti yalla mhm. yalla yàlla wéral leen sunu way jur yu góor itam ñu yàgg fi lool mu and ak wér mhm. kilifa kër gi nak mention spéciale à lui mhm. merci di gungé itam di nuyu itam pap Cheikh ci may gungé mang koy nuyu imam <laughs> suis mom mom mom équipe euh, euh, mm-hmm. comme pour euh, quartier général naan da nit ki la dama ah. dama dama xamadi xam nga dañu dañu dañoo <laughs> donc maa koy nuyu bu baax euh, euh, euh, aussi di nuyu Evatra

mais aussi euh, euh, ki nga xamante ni moom mooy Aliou Diassé euh, mi nga xamante ni ñoo sekkoon kon liggéey bi nak euh, euh, euh pap Cheikh dañu ñëwaat tay ci benen sujet bi nga xamanteni sujet bu am solo la euh, mu ñël mbirum locataire ak agence immobilière euh parce que ci jamono ji ñu nekk di jamono mbas mi dañoo kon fort ci wewu béy ne am yenn agence yi nga xamanteni ñu ngi ñent euh ba sax juromi wéru caution pour mën la jox kër lolé inshallah dañ danañ ko rek daal di wax loi bi lan la ci wax mais aussi mieux comprendre lan moy liggéeyu agence immobilière ak naka la wara mëna def ba tundiku kon yu jëm ci wàllu woowu kon ci kanam Pape Cheikh incha allah danañ déroulé. macha allah donc loolu mooy sujet bu am solo boobu la nga xam ni euh, préparé nanu ko. Mhm. Euh, Bessel euh, ñu ngi lay nuyu yow itam ci kaane de voyage yi nga ñuy yàgg bégalee demoon nga ba kër gu mag. Pape Cheikh euh, maa ngi lay nuyu di nuyu euh, Eva sama magu bopp di nuyu Dieynaba Seydou Ba Pullo Jéeri euh, yii de yeeso maataan ko weltaade di nuyu nag sama xarit sama papa moom daf ma koo jalise <laughs> muy rek tonton Garmi di la ziar tamit lu bëree bëri di nuyu nag kilifa diine yi ak kilifa aada yi waaye nag di beral nuyoo kooku di Omar Malick Bayal Sow Seydou Sow mi de salminama mi wiyamatan duwaw yettima a jarama ceerno Samassa Murabbi an ah, nene men beltima wawji ɗi jottima ko mbiɗa minen ko foof allah nen seedi menen mbaɗa ɗum meɗen mbiya moon tan onon foof on jarama médina gouna sen onon kadi mi nani eh, ɗum ɗo ko kalɗon ko mbeɗa wiya moon tan yo allah jaabin duwaw ko allah woni dokkowo ko allah woni jaabinowo duwaw yo jomirawo joom mbawɗo yo jaabin duwaw eh, pape cheikh diallo eyi eh, mais mais ko temps ko ko guddu ko ɓayi ko ko par ko parler rapidement ko attendre baye ndiaga diom aussi ah pape cheikh nak ah. pape cheikh pape cheikh nak jo jaabi aussi ko temps waaw ba tey ba si temps bi na mais di ñu bàyyi ñu nuyoo bu soobee yàlla <laughs> aussi mais koo ci de salaamaaleykum rek mu ràcc ah mais noonu la Pape Cheikh xam nga mu fi weeg bu baax nii Cheikh Ibrahima ñu ko tey gaaw ko taa ko minuit bientôt ko Baye Ndiaga Diop attendre depuis deux hay so gombiɗoɗe koye yontere ha yontere han min gara somin jooɗima noon mamin calmin kilifaji ɗi noon eh, ko gongo kono nag Pape Cheikh comme nin ko waxe rek <laughs> dañuy jaale ki nga xamante ne moom mooy mairie Bey eh, ndaxte li ko dal metti na torop ñakk waajur dafa doon loo xam ne lu metti la mm. dañuy daal di dem tamit fi nga xamante ne rek moom mooy njaareem mm. njaareem nag buñ ko waxee mooy suuf si nga xamante ne mm. dafa ñaanoon kooku di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu daal di fay ñëw na nekk googu nag tey moom moo jur lu bëree bëri mm-hmm. waaye dañuy dem ci kër goo xam ne kër gu sell la te bu ñu nee bay Fall ne maam Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. lépp la nga xamante ne foofu la tàmbalee muy bernde yi mm-hmm. dañuy dem ca waañ ba nga xamante ne uh, foofu lañ togg yi njëkkee woon mu ko doon togg di ko yóbbu nous sommes impressionnés voilà ah, togg waañ ba dañuy dem ca waañ ba nga xamante ne foofu la doon toggee daal di yóbbul bernde bi uh, kooku nga xamante ne rek moom mooy Cheikhul Khadim uh, Pape foofu la ñuy doxantoo tey dem xooli ji loolu Pape Cheikh Aïcha mam Serafal kenn duko xam ba keroog yomal xam ndax koku mom neena dafa raw xel raw beut fi nak mom wañ la won waaw wi ci lañ dan toggee super bi dan andé ci ndog yi ndax xam nga seigne touba ndog yi ko mam Serafal dan togal fukk ndab la dan don ak ñaar fukk ndab ak ñaar yi dañ la ben weer wi mom suñ borom da ko defal xam nga jaamu yalla weer la lañ wax mhm. waye mom at la ko suñ borom defal motax tax mu ko def fukki fukki ndab ak ñaar léegi super bi nag fi dañ ko daan toggee maam Cheikh Rafal moo ko daan taxawul boppam mhm. léegi suñ ko toggee ba noppi dañ koy ànd ak boole ko fukki ndab yeeg ñaar yi ñubul ko sëñ mag bi ba léegi sëti maam Cheikh yi ñoo lañ loolu la ñuy def mhm. fii tamit lañ ko toggale moom maam Cheikh jigéen daawu ko toggal waaw ah, waaw déedéet jigéen ko toggal ñoon jigéen daaw leen toggal daaw leen fóotal léegi mhm. lii mooy baraakom Ndande Fall bi ngeen di dégg waaw baraag bi war na am téeméeri at nag laa la wax jamono ji maam Cheikh Rafal doon dund la téeméeri at la am maanaam ba léegi soppiwuñ ci dara karo yi lañ ci def ak veer yi léegi bagage yi maam see Rafal am yëpp mi ngi ci biir barak bi sëñ Cheikh ndigal moo ko def nii ci ci taalibeem ndigalu ndigal la joxoon benn taalibeem naan Cheikh seen baadaan moo ko defar moom moo ko yeesalaat nii waaye léegi ba léegi soppiwuñ ci dara barak bi nii la mel tiwil yooyu ngay gis nii fi moom moo woon ci kaw barak bi léegi bagage yi maam Cheikh Rafal yëpp nag yep yo xamni dan jël dan ko jël seigne touba ak barkelu gi yep da ko dan jël du ko dugal ci barak mi ngi ci barak bi léegi dañ ko wutal ay verre ci bir dañ ko defar ci bir bu mu rafet duggal ko ci bir ay verre nga xam ku ñëwatee da ngay taxaw xol ko fi lay nek bi mu genn aduna dañ ko gatt bu mu ko mi ngi ci bir suuf si ñu duggal waaw ñu dugal ko ci bir suuf si photo bi mu photo won nak ci barak bi lako defé defee barak bi mi ngi woowoon nak jamono joon mi ngi woon Thiès mhm. ndax barak bi dañ mag ñi fepp fu mu mosaan nekk Sénégal mag ñi dañ ko yan yobbu ko fa voilà te loolu lu lu ndaw la rek ci euh, li nga jëlee euh, Bessel fi nga xamante ni moo di kër gu mag. dëgg la Pape Cheikh comme ni ñu ko gisee rek euh, li nga xamante ne tey moom moo waral bernde yi moom moo waral tey bayfaal yi di togg ay ndab koor gu jot ñu koy yóbbu donc loolu nga xamante ne rek mooy suñu maam maam Ibrahima Fall bërëb boobu ñu wone sànq rek fi nga xamante ne zinc yi loolu amul dara luñ ci soppi ndaxte jamonoom foofu lañ doon toggee daal di jël nag ndab yooyu ndabu fukki ndab ak ñaar daal di koy yóbbul ki nga xamante ne rek moom mooy Cheikh Cheikhul Khadim euh, ñoom tamit nag ñu daal di continuer di ko wéy di ko def ba tey euh, soo demee foofu nee nañu euh, bu njëkk ba nag ay jigéen daawuñu ko woon toggal ay góor ñoom ñoo doon toggal waaye moom da doon takk ndiggam daal di taxaw ci togg bi ñu togg ko ba mu pare mu daal di yenu tamit ndab yi ànd ak taalibe yi daal di ko yóbbu fa nga xamante ne rek moom mooy kër gu mag di wone rek bernde dafa yàgg yàgg ci àdduna ndaxte bu ñu xoolee suñu mag yi ni ñu doon doxalee waaye suñu wàlliw yi ni ñu doon teralee doomu aadama yi waaye tamit di teral ay wàlliw ci biir wàlliw yaakaar naa ne loolu royukaay bu mag a mag la exemple boo xam ne tey nit ku nekk ca lala la yàlla wërsëgal war nga cee mën a teralee ka nga xamante ne moom mooy sa moroom Pape Cheikh macha allah muy lu am solo et bay euh, euh, Baye yi du Sénégal kese la ñu ne euh, foo demee foo mënti dem ci àddina ñu ngi wane seen bopp à travers ay activité yoo xamee ni ci wàllu koom ci wàllu social par exemple image yi ngeen di gis ma nga amee ca Euh, Tambalik ou koor gi euh, fofé nga xamé ni modi euh, institut islamique bu taverni Baye Fall ya fa ne ñoo jóg ak association bi ñu LAMP association Serigne Fallou Fall pour servir ndogu ci période bo xamante ñi nga xamante ñoo nek bitim actuellement ñom ñoo gën dundu ay jafé jafé par rapport au crise bi di crise Covid 19 ci liggéeyeetuñu dañoo nek ci confinement total yónneetuñu am na ci ñu ci ñoo xamante actuellement danaka pour ñu am luñu ñu sax c'est tout problème faal ya fa ne euh, taverne ndogu di di rek euh, on a été là-bas en France même si tëj yoon yi am nañu ay images yo nañu leen ko la ta lépp ngi ci loxo sëñ Cheikh Khady ñu ngi fii ci taverne yi dem nañ ël na yóbbu fa malgré confinement bi fexe nañ ba am autorisation nga xam ñun waru waruñoo sax génn 2 kilomètres ñu ngi daw lu ëpp plus de 100 kilomètres pour ñëw fii ci liggéey bi Serigne Touba rek ko jar ñi am nañ autorisation. Euh, voilà donc akuk dog-dog ay cat la yuy génn rek la ñu am ci élément boobule bi ñu koy wone rek la jékki-jékki rek càng waaye barkeb Cheikh Ibra dinañ ko càngarti tegal leen ko ngeen gis njàmbarte googee nga xamee ni euh, dañu ko seetlu euh, foofee ca France donc premier mais bi passé la woon euh, bërki démb rek ci weeru koor gi nga xamee ni période crise sanitaire la Covid 19 bi président wu France sax daanaka yenn saa bu génnee ba discours day tiital sax waa France waaye sénégalais ak Baye Fall yenn France ñoom Cheikh Ibra rek amuñu benn tiitaange xanaa jóg rek takku ngir dimbalante ci ay ndogu wax naa ko léegi